yëkkati na ko effectivement euh, kontante bu rëy la am ci qualité waxtaan bi nga xam ne seq nañu ko le protocole ñaari protocole yi fëgg nañ ñu je crois quatre ou cinq fois parce que waxtaan wi dafa yàgg mais li ñu doon waxtaanee moo tollu ni parce que ñaari gor bu ñu toogee di waxtaane réew mënul nekk waxtaanu sorxu sorx faaw mu nekk waxtaan wu dal waxtaan wu ku nekk di joxe xalaatam waxtaan wu ku nekk di génne li nekk ci dënnam moo tax ma ne bi ñu paree ci waxtaan wi ma jàpp ne libre bi ñuy bind le defi économique un bien commun jàpp naa ne tiitre bu am njariñ la war a doon dana nu continuer nag waxtaan yi ni mu ko waxee waaye loolu yëpp ci dal lay aaju loolu yëpp ci jàmm lay aaju yéene bi kenn ku nekk ci ñun am ci senegal mooy senegal romb fi mu ne waaye loolu ñi yor pouvoir dañu ci am part de responsabilité bu mag dugg si na ci wax na jaajëfal ñu ci li ñu taxaw moom bi mu nekkee ci jafe-jafe parce que jàpp naa ne man du doon man taxawaay bi ma ci taxaw taxaw bu ni mel nga ci am kon jàppal ne taxaw bi ñu jóg ci jafe-jafe jooju daloon sa kaw ba tey ñu teg ko ci sa ndodd d'ailleurs et yéene bi mooy comme ni ñu ko waxtaanee mu nekk lu leer nañ Sénégal yëpp teg ci seen gën ku ne xam ne lii am am na leneen lu newoon ci ginnaaw te loolu ñun am nañu ci yow yaakaar wax naa la ko waxaat la ko j'ai confiance en vous et j'ai confiance à la justice du Sénégal pour que loolu ñu leeral ko ñu xam ne nit ñi la doon ruumanat amaana jublu ci nasaxal nit lañu bëggoon kon réew mi am na ay piliers yoo xam ne kenn amul droit menacé ko et depuis un moment damay dégg wax ju may tiital ci réew mooy waxi waaso waxi diw fii la bokk diw fële la féete c'est un discours dangereux et je dis la manipulation de nos appartenances ethniques il faut ñu teg ko ci suuf parce que Sénégal méritewul loolu et ki ma ci interpellé au premier chef c'est le président Macky Sall dañ ko jox réew mu ne ñum na fexe ba buy dem mu delloo nu réew mu ne ñum bu dara ba bënnul dara toju ci li nga xam ne nag moom mooy taxawaay bi waxtaane nañu ko réew mi am na ay nit ay ndaw yu génn wane seeni jafe-jafe wane seen mer wane li nekk ci seen dënn parce que réew mi metti na réew mi jafe na boroom kër yi lañu mënoon mënatuñu ko ndaw ñi am yéene dimbali seeni waajur mënatuñu ko parce que tout simplement environnement économique gu réew mi toll na foo xam ne ndaw bu ci nekk amatoo espoir ca fa nga jëm et loolu suñu responsabilité la muy moom président Ousmane Sonko muy man bu Bougane entrepreneur acteur de développement ñu xool naka lañu ñu mën a soppee Sénégal naka lañu ñu mën a doxalee Sénégal président Macky Sall nee na génne na trois cent cinquante milliards ma ne c'est bien mais c'est un aveu d'échec parce que boo demee ba neuf ans après nga ne danaa génne trois cent cinquante milliards pour les jeunes ça veut dire tout simplement nangu nga ne la nga defoon boobaak léegi dara baaxu ku mënul bawul lu yàqu day doon yow et damay wax saa su ne ni jànguloo tari amut fay moom président Macky Sall lii nga xam ne moom la jëmee ci ndaw ñi j'en ai discuté avec le président Ousmane Sonko Sénégal waroon woon a toll foo xam ne ndaw ñi dañ naan dañ leen di wutal liggéey parce que ndaw ñi ñooy Sénégal mais figurez-vous que la moyenne d'âge au Sénégal c'est 19 ans ñi nga xam ne amuñu 40 ans léegi ñu toll presque ci 77 pour cent de la population ñi jël ay décisions ci réew mi ñoom ñëpp. dañoo am plus de 60 ans waa ñi am plus de 60 ans ci réew mi matuñu 10 pour cent kon lu matul 10 pour cent ci réew mi ñooy jël décision pour quatre vingt 90 pour cent des Sénégalais alors la jeunesse est interpellée moo tax ma ne li amoon ci réew mi fan yéene ku jàpp ne politique rek la nax nga sa bopp c'est un signal fort et on en a discuté surtout pour les hommes politiques surtout pour ñi nga xam ne dañu war a jël réew mi ëllëg yore ko cette jeunesse dañu soxla perspective jeunesse bi dañu soxla ñu libérer les énergies pour que ñoom ci seen bopp ñu mën a am lu ñu suturloo ba mën cee yor seeni wayju et loolu kenn ku nekk ci ñun war na ci bàyyi xel li gën a am solo ci waxtaan wi ma seq ak le président Ousmane Sonko mooy fertilité discussion bi nga xam ne am nañ ko sur l'économie sur la fiscalité sur euh, les orientations euh, en termes de de de de, de recouvrement euh, de la dette en tout cas de de euh, de recouvrement par rapport à à la fiscalité mu nekk loo xam ne waxtaan nañ ci échanger ci et da ngay rendre compte ne ko ñi ñu jiite dara intéressé wu leen lu may seen bopp figurez-vous maa ngi ko koy wax au Sénégal on a à peu près quatre cent inspecteurs des impôts ci Sénégal yépp donc quatre-vingt-dix pour cent dañ leen concentré biir Dakar dañuy jël ay inspecteurs di leen yóbbu Cap Skirring dañuy jël ay inspecteurs des impôts di leen yóbbu compagnie sucrière sénégalaise ne leen dem leen ngeen def fa mission d'inspection ça veut dire motuñu maire yi nekk Sénégal ñoo ëpp inspecteur des impôts yi directeurs généraux yi nekk Sénégal ak PCA yi ñoo ëpp inspecteur des impôts yi te état nu muy amee xaalis état lu koy jox xaalis mooy inspecteur des impôts parce que ñoom ñooy dem vérifier ñooy dem xool ñooy dem jëli xaalis bi doon rot mais loolu yëpp ñu échanger ci lu jëm ci wàllu économie nu ñuy développer Sénégal yan mesures de sauvegarde quels sont les secteurs yu am solo yoo xam ne war nañu créer chaîne de production yi ngir cette jeunesse mun a am ci lu ñu jàpp on en a discuté li ma gën a neex ci discussion bi c'est quand le président Ousmane Sonko chaque fois ci biir wax bi il ma dit Bougane boo jëlee réew Bougane boo jëlee Sénégal ça veut dire dafa gore et ci biir wax bi it ma ko koy delloo ne ko yow boo jëlee Sénégal ça veut dire tout simplement ça ça veut dire ça veut dire tout simplement que ñun ñaar ñëpp li ñu intéressé du lenn lu mooy defar Sénégal du lenn lu mooy réew mi am dal et du ma jóg ci di ko wax Serigne Mountakha Bachir moom rek moo comprendre ne Sénégal suñu alal suñu or suñu jama mooy suñu stabilité dal gi am ci réew mi kon moom sëñ Muntaxa bu wootee dal woote jàmm kenn ku woote leneen lu dut loolu sénégalais yi duñ la ci fekk te ñun ñi dogu nañu ci fekki ko ci li nga xam ne moom la bëgg bañ nañ ko ba tënk ay poñ jox ko ni ko lii mooy li ni yittewoo mu jël ko gàlloo ko ne moom dana ci taxaw dana ci dox kon am nañu yaakaar ci moom ki nga xam ne it moom moo jiite Sénégal ab présentement muy président Macky Sall dal ci réew mi moom la war dama dégg fan yi démb lay wax sax li am université qui est regrettable d'ailleurs mais damay interpeller encore l'État du Sénégal parce que faire régner fexe ba dal am ñoom ñoo ko warloo ak askan wi parce que ñoom la ñu jox réew kon nañu fexe ba coow li may dégg coow bu dangereux wax yoo xam ne waxi ñàkk fayda la muy waxi waaso ñu teg ko ci suuf nu mu gën a gaawe parce que Sénégal mérito wul lool ci biir waxtaan wi luy développer le sud du pays on en a parlé l'état de la route Sénoba euh, Madina Wandifa euh, Bunkiling euh, Oulampan jëm Bignona wax nañ ci yoon yooyu et mu am ci ay xalaat yu am solo ci naka la ñu mën a soppee xar kanam bi nga xam ne moom la Sénégal am anticiper ci li nga xam ne moom moo di euh, révolution yu war a ñëw donc c'est dire waxtaan yi nga xam ne am naa ko bari na mais waxtaan wii ma waxtaan ak moom tey dama gënal pourquoi parce que temps bi ñu def lépp Sénégal donc la ñu waxtaane yokkute Sénégal dong la ñu waxtaane fexe Sénégal jëm sa kanam dong la ñu waxtaane li ñu yóotu nag bu dee ne liggéeyal Sénégal dong moo ñu tax a jóg yàlla nañu ko suñu borom defal yombalal ñu ko mu ànd ak dal bu dee ne leneen laxasu na ci lu mooy defar Sénégal mu jëm kanam yàlla nañu ko suñu borom xañ ba duñu ci jot allahuma salli ala sayyidina C'est bon Ah non, parce bien résumé. Wow. Merci. Alors, ah, il y a ah sëñ bi sama mbokk la tey xam nga ni sëñ bi sëñ bi laa duggee. avocat sëñ bi pendant six ans. sëñ bi béy bi sëñ bi ñu kër foofu. waaw non sëñ bi laa duggee. j'ai des parents. Ah, sëñ bi compte. sëñ bi compte waaw. Thiès. Thiès waaw moom it sama mbokk.